mais eh, mu ne ko danga ne woon dama laa daanoon ngay lay bi yoon nag danga. danga feebaroon danga feebaroon. alaaji Papa xam nga seen bëre dafa doon bëre boo xam ni dafa doy waar ndax dafa bëri kumpa. te li ko waral muy bëre bu njëkk ba dañ defe dafay yomb ci bal la mais ku gis Bombardier ni mu dundoo ak ni muy bëree pour Balla am ci moom dara yob du yomb xanaa ko moom entraînement bu bëree bëree bëree bëri xanaa loolu moo tax d'ailleurs mu dem di préparer wu. ndax Bombardier déjà musculature bi mu am ak taxawaayam ci làmb ak ñeme gi mu ñemee su fekkee da ngay bëgg a bëreeg moom te doon négocier bu bëri bi gaaw soo moytul da ngay am problème te loolu moo dal Balla keroog. day dëgg la. ne nañ sax Balla dafa feebar loolu nag ñun duñu médecin mais dama defe ni bu ko waxee am na ak circonstance su làmb ja wante làmb làmb la rek Bombardier daf ko daan jël ba sax leerul. wante làmba mel noonu jël yëpp ay leer mais jël jël la ñu jóge fa ci diggante bi Bombardier bëre ak Modou Lo mhm. nga bëre ba na mu demee keroog wante différence de poids quarante kilos dafay naqari ci Modou Lo ak lu mu jàmbar jàmbar day mujj toqi ba mu fa jógee tamit gis nga Bombardier bëre ba mu bëre ak Eumeu Sène ak na ko Eumeu daane que Eumeu tamit li tax muy ndaanaan moo ndax booy bëre poids lourd koy jéem a juumloo rek mais doo ko jéem jaay njàmbaar te ëmb keroog loolu la bëri ak Bombardier ba daan ko tey jii nag Bombardier ñëwaat Balla ci diggante bi defaru ndax xam nga defaru paasewul nga def ouverture ak Gris Bordeaux xeex ak moom xeex bu metti ba ñu jox la victoire par décision nga jóge fa bëriwaat ak Modou Lo mi nga xam ni ci mbëri gën a naxaree daan ci làmb la bokk nga daan ko jël bu amul benn werante kon Balla egsi na fa mu nekkoon ñëwaat na fa. Mhm. te xam na li ko daan ci bëre ba ndax ndaanaan la Sénégal bu fi dàqul bëri ci ñi dàq bëri ci la bokk. kan Balla. Mhm. ndax bëreem ni muy bëri. Mhm. Maxime yi xam na làmb xam na li ma wax. ndax dafa am étoffe champion. ndax champion doo négocier. da ngay ñëw daan jàll. dafa mën a bëree. dogu mën a mën a bëree koy def ak ñeme. dogu mën ko daa jaar sama mbapat. mos a ñëw. bëre sori lool ca boppam ma dàllu Papa Kan dàll bi ne woon Caaroy te mhm. léegi ma nga Espagne mhm. daan ko ma koy jox mandat daanaka laajul xaalis ba dafa dafa ger medd dem gedd dem may leen kii champion lay mhm. jikko champion la yore ndax xam ne defet bi ko mais mujj gi feneen ngay dégg Balla Gaye 2 champion bu ma saan ñëw nag turandoom may wax Balla Gaye mi ngi ñëw ak Baye Ma Ndiaye ak les deux. da mhm. nga leen encadré rek ñu bëri ba pat dem mais bu fi histoire am. nga xam ne moom it yàgg naa sol. na sol li ma naan ñoom Youssou Ndour doomi deret lañu mais ñoom Balla Gaye 2 mi doomi xol lañu woon. ci mhm. Balla Gaye 1. dama dajeeg moom màkk en 2011. man ma kaay ma présenté la yaayu Balla. Balla mu indi mu indi yaayam. waaye alaaji ma ne ko ah mu ne ma danga ñaan ma ne ko ci lan mu nu ma day bëri yëkk nii. te Yékini mhm. champion la. ma bëgg nga ñaanal ma ci combat bi ndax combat bi dafa rëy te ki muy bëreel champion la muy Yékini. mën na ko bàll mun naa mën na ko kii boo ko ñaanalee ñaan nga dal. Mhm. moom ñu ko war a ñaanal la indi yaa yaayam. Mhm. ñaan ki ci yow la gën a fé féetewoo ndax boo ko ñaanalee day dal. mënuma jërëjëf. keroog ba làmb ja taseen ndeysaan daf ma fekk ci palaato bi ma toog mu ñëw ndeysaan. man ko lu ma la waxoon mu ne ma billaay dëgg la kon bon combat bu doy waar la li tax mu doy waar mooy Balla ni muy bëree mooy foo nekk mu fekk si la te Bombardier am na kàttan goo xam ni ku ñëw mën na laa dékku. <laughs> loolu moo tax bëri bu metti lay doon te du bëri boo xam ne da nga naan diw mooy daan ndax boo seetee bëri bu njëkk ba la juumloo Balla mën naa juumloo mbër. te <laughs> boo ñëwee boo juumee rek da ngay daanu te keroog Balla loolu la ko dal loolu tax moo tax man la bëri bu metti la bëri la boo xam ni kumpa la dëgg la. Balla daanu na ci bëre bu njëkk ba ñu dafay jël ci revanche am Bombardier tamit boo déggoo ni muy waxee mook Balla bu ñu toogee ci communication bi toujours Balla day wax nangam mu ne ko ba bés ba donc Bombardier li muy indi ci bés ba waxu ko wanewu ko loolu moo tax booy bëree ak ku am expérience ak ku yàgg ci làmb mhm. bu ko wax li ngay def mhm. ndax boo ko waxee bu ñëwee da koy moytu yëkki ne loolu moo tax kadeeram gudd xam nga euh, alaaji Papa li nga wax ci Balla moom laa bëgg a parce que xam nga dañu organiser Balla euh, Balla Yékini le 22 avril 2012 Demba Diop. Euh, fekk 2010 Double Less ne Yékini dina daanu en 2012. 2012 yàlla dogal Balla gay daje ak Yékini moo am benn moment comme maa organiser làmb ji bi arbitre di pare sifflet may romb Double Less ak Balla Gaye mm-hmm. Balla Gaye tàllal ñaari loxo yu Double Less. te xam nga Double Less. boo xoolee en 1974 la dajeeg Moussa Diame Demba Diop. bi mu tàllalee bala tàllal ñaari loxo yi mu koy expliqué naa koon maa ne woon dina daanu 2012 te yaa dajeek moom. balaa ngi yàkkamte te naa koon ñaanal gaaw ñaanal gaaw ma dem ci digg géew bi. ma taxaw may leen 2 mètres taxaw jàkkaarloog ñoom. keroog damay wax ne combat Balla gay ak Yékini ñaari poids lour yu bëree bëri bu réyee noonu. man wax naa ne vingt ans ci gannaaw vingt ans ci kanam. doo gis ñaari poids lourds yu bëri bëri. c'est le combat du siècle ndax la ñu woon keroog. max ñoom ñaar xam nga xam nga Balla da di xale boo xamante ne nii mos nañ dem kër Gaston xam nga moom bi mu yóbbee papa ji Màkka la ñëw ci gastoo ne ko teraanga ji ñëpp am laa bëgg damaa bëgg kër pour dugal ci sama yaay. moo tax gastoo ko dugal ci kër googu jël ay maçon yu doon yi woon ci sànceem. ndeysaan dama lay wax <laughs> ak taxaw woy jur <laughs> te fonk say wayjur ba làq seen ngërëm bëri ko ci mbartal la ku puus nga dem ku nga dem da ngay ñe da ngay neex a ñaanal lay dëgg waaye say wayjur buñ kontaanul ci ñëw sëriñ bu la ñëw doo ko am doo ko am dëgg la kon moom tarbuy na ay wayjuram ba am li mu bëgg ba am li mu am ci moment bi muy laaj Yékini yaa ngi dégg mën a ñu bëri conseil lañ soxla conseil Yékini lañ soxla woon mhm. ñeneen ñi xalaatuñu woon ne war nañ koo mën a daan mhm. man ne ko dama laa xam te xamuloo ma dañu mhm. toog kër Gaston mu ne ma xale yi di lukkee ku kañ nga ci xalaat ne moo moo mën a daan Yékini man ne ko Balla Gaye ñu toog tuuti Tafa Gaye ñëw fa. daan naan xam naa xelam dina ci dem. Gaston posé ko même question mu ne ko Balla gay kon <laughs> li ma naan montre yu baax yëpp a bokk. lay dëgg la kon sa biir écurie raay.